ci ndigalul sëriñ Muntaxa Mbàkke xalif général des Mourides sëriñ Cheikh Ahmadou Mbàkke xalif sëriñ Abdou Khader Mbàkke sëriñ Busobe Buso Bangaaj xalif sëriñ Busobe alhaaji sëriñ Fallu Buso xalif sëriñ Mbàkke Kanni alhaaji sëriñ Fallu Buso Cumbuleen xalif sëriñ Masamba Kanni Buso jabootuk sëriñ Masamba Kanni Buso di leen yëgal bisub màggal cant ak ñaan ba ñu baaxoo defal seen sëriñ seen soppe seen wayjur sëriñ Masamba Kanni Buso alxames ñaar fukki ak salaatu ala nabi def ko addi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké Khadim Rasoul ñaanal ca Serigne Mboussobé ak Serigne Massamba Kanni ak mbooleem njabootam ga 14h dañu julli bernde bu ñu sëlmalee takkusaan la ñuy def cérémonie religieuse ba bu ñu noppee Serigne bi sant mbooloo mi soññi leen ñaanal leen teewaayu njabootu Khadimu Rasoul bokki Mbacké ak Mboussobé seex yi aju ci yoonu murid kilifay diine yi ak kilifay aada na màggal te sellal am kërug aljanna màggal guddig rasulullahi day far bakkaar fanq ay lor sëriñ Masamba Kanni bis bu yombul Bamba ko wan yoneen ciw gàmmu Jurbel yërmande jéggal na ko sa borom may Masamba Kanni ar njaboot gi ciw ay la qualité qui fait différence